tay 22 euh, villages daje nañ fi ni ci Tobène di naqarlu injustice bi nga xamante ni industrie chimique du Sénégal mi ngi koy exercer ci village environnants yi parce que comme niko ki kii sank Cheikh Fall déjà ICS war na fi jël 42 hectares 47 hectares plutôt ci population ci suufi population yi nga xamante ni moom laa wax sank té lima bëggone léral également moy que population yoyu souf soosu mom mo nekk sen seule source de revenu déjà baykat déjà ñom ñëpp ay baykat lan té mën naa wax ni amuñu banen source de revenu budul dul mbay kon mbay mi mom mo nek sen secteur principal ci lañuy dundu, ci lañuy def lepp déjà kon ICS su ñëwé bëgg jël souf yoyu té barème d'indemnisation bi mu proposé comme niko Cheikh Fall waxé c'est un barème d'indemnisation bo xamni c'est très trop trop même euh, superficiel lo xamante ni wax dëgg yàlla baykat yi sax liñ doon am ci souf yi ëpp na liñ leen di proposer de ce fait population yi jog takku ni loolu duñ ko nangu ba fi ñuy wax ak yeen ñetti fan yi weesu à chaque fois chaque jour sous-préfet administration bi fi nekk muy sous-préfet préfet ñi ngi yabal ay forces de l'ordre di ko yóbbu ci askan wi ñu leen menacer di leen terroriser askan wépp jóg nañ nag pour wane ni wax dëgg yàlla pare nañ pour dee ndax ki nga xamante ni am pour di ci dund muy mbay képp ku ko bëgg a jël ci moom dalay jaay bakkanam de ce fait ñi ngi lancer appel au président de la république. lii nga xamante ne mooy àll gi di t'oben ak dëkk yi nga xamante ni mooy wër. Dim Cissé ak Maka Dieng ak Kër Mbëggey dëkk yooyu dañu ñëw pour jël seen suuf te barème d'indemnisation bi nga xamante ne moom lañ ne proposé nekk barème bu dérisoire ndax yaakaar naa ni képp ku ñuy jël sa suuf war nañ nga defal loo xamante ni buñ ko jëlee boo ëllëgee di nga am loo mën a dundee waaye ñëw fay la hectare un million cinquante mille daal di lay wàññeel ay garab te àll bi ay garab amatu fi ndax. ICS industrie chimique la rey garab yëpp mu xam ni fi bu compté garab du dépensé lu bëri mu ni day wàññi ay garab léegi nag ñun loolu lañ bañ ba tëdd ca naajo li bëgg mooy mu ñuy fay par hectare bu ñu hectare li ñu ci bëgg mooy ñaar fukki millions hectare ñaar fukki millions lañ wax lépp nekk ci biir mais waxatuñu pour wàññi ay garab ndax garab gu ñuy wàññi nekkatu fi comme ni ko ñëpp suuf kep ko yar parce que buñ bàyyi woon buñ bàyyi woon suuf si tey suñuy maam béyuñu ko suñuy maamaat béyuñu ko UGT tay bu ñëwee na fekk garab yu mag yo xamanté Allah bi dina fat fat go xamanté ni dina ci def peine bu 10 à 10 à 10 ay milliards yu bari bari pour ko mën exploiter kon ñi téye suuf ci dal di koy euh, bay ba mu neex ak das defar ko bañ tollu fi ñooñu dañ am lañu ñu war am lool motax nak légui ñu ni won dal ñun bëggatu ñu ñuy natal par ay garab di ñu wañali garab waye dañu bëgg ñu ni natal ay hectare ni hectare nangam té liñu bëgg moy hectare ñaar fukki million alors que ñom hectare 1 million cinquante mille lañ wax té loolu xam kuñ ko fay amoy garab da ngay torox 89 villages yi nek ci commune Mewan ando ndaw nañ association des jeunes yépp bolo nañu ni loolu dañ ci taxaw ba ñu ñi dara nak suñu bakkan nañ ci tek ndax mom ci bopam nee bakkanam la ci tek ndegam mom mi fi bàyyam amul benn mètre carré mo ci tek bakkanam waxuma la ñun ñi nga xamante ne suñuy maam ak suñuy maamaat ba tey ji ñun ñoo ci nekk ci suuf